li ma dugal sama li may bañal sama bopp moom laa leen di rek moo ne mooy inna akramakum foofu ki la gën a ragal yàlla ki la gën a tedd mooy ki la gën a ragal waaye cëriñ foofu rek la bàyyi ko ñëpp noo bokk di jaam noo bokk ndigal li li ñu digal noo bokk ñu tere da ngeen bu baax de waaye ñun ñëpp noo bokk ci jàmm cëriñ cëriñ cëriñ cëriñ amut ci balaay ci wax ci ci wax suñu jooju rek ci alquran ci la bàyyi ko inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ragal yàlla nag euh, euh, doy la waaye kenn ku ci jombul ña nga am ñàkkuloo ci xam kon ak eh, eh, diinu nasiha yonent wax ne diine nas laabiri rek la diine ak diinu nasiha diine laabiri rek la kon mooy li ma li ma wax li ma yéene sama bopp moom rek laa leen yéene li ma bëgg sama bopp moom laa leen bëggal ndax noo bokk bokk Adama ak bokk di jaam te it yonent bi moo ba diine jeex na labir rek la kon ngeen xam ne man nii tey yàlla def am force la ñi nun ñu am eh, ci daje bi loolu man am naa ci cant guri cant gi weesuwut am naa yëlla ju ma mën a wax ak yéen man leen a labiré labiré gi nag daanaka weesuwul kàddu yooyu weesuwul kàddu yooyu jariñ amut inna akramakum inda atqaakum moo moo moo foofu la jógee ki ki la ki gën tedd mooy ki gën ragal yàlla dañuy dem da ngay sëriñ si maanaam ñi xam ah, dañoo dem ba rafet seen jortu rafet ci moom sa digg ma boromam loolu mooy moo foofu la sañ tàmbalee ki nga xam ne da ngeen bokk di dund ngeen di bokk di jëf ngeen di ko gis muy mu jëm ci boromam yitte dem ci war a yitte yitteem jëpp mu def ko ci lépp lu muy def yàlla tax mu di ko def na ci boromam kooku loolu rek ku may njiit ndax njiit gi sax wutu wutu tëlu ko njiit googu mu am sax tëlu ko waaye nag ña ko ña ko ko ñi gis loolu ci moom ba ñee ci ba yaakaar ne mën na de di mën nañ ko wut ci moom loolu rek moo indi cëriñ loolu rek moo indi cëriñ am nawul noonu loolu loolu rek la kon ngir noonu rek doy na ngir xamee ko noonu xam bu leen jombalee dara seen bopp ci lu baax dara jomb leen la xadd karal na ba ni adama la yàlla wax doomu adama la yàlla teral teral na ko ba noppi moo xam nag lu mu gën a sàmm teranga jooju rek di gën di yokk di gën a jeg jëm ci borom gën a jege borom ba àjjana waaye lu mu gën a sàggan teranga jooju di gën a dellu gannaaw di gën a dellu gannaaw ba mel ne bàyyi ma foofu rek doy nañ defe naa ah, doy naa yëpp eh, journaliste rek man xamuñ sax waaye da ngeen am tuuma da ngeen am tuuma tuuma ji rek xam naa ne du du du du du loo xam ne lu nekk lu mën lu mën lu mën a wér la ndax nit ñi nit ñi nit ñi eh, nit ñi dañoo bokkut xel yi bokkut jikko yi bokkut yaakaar naa ne Euh, journaliste bi nga xam ne am na xel mu rafet xel mu baax am na jikko ju baax te si dara boroomam yaakaar naa ne dana sàmm la muy bind ak la muy wax. kazaalika safaan ba it noonu rek la dem kon na ngeen góor góor lu baax <laughs> xam ngeen xam ngeen dëgg xam ngeen fen xam ngeen luy dëgg xam ngeen fen. di hmm. ngeen lu ba luy dëgg rek. na ëpp ci seen seen i wax ak seen i bind ak seen yëngatu la dul dëgg na ngeen góorgóorlu bu baax di ko wattandiku seen kéem kattan foofu rek laa ci yem jërëjëf Mbacke jërëjëf foofu foofu rek laa ci yem noonu dong la demee bu leen jombale dara gisul sëriñ rek ñu ne def nga defe ne da moom taxawaayam bi daa jomb déedéet ba jëmukaay wutukaay benn yàlla rek la yàlla rek fi nekk waaye dafa moom moo waxaat boppam ne ki gën a tedd mooy ki gën a ki a ragal yàlla wax ji jeex na. jërëjëf sëriñ ak taalibe bi foofu la. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. na ngeen fi yàgg lool bokk góorgóorlu bu baax maa ngi yéen a yem képp. ay jaam rek lañu. fa suñu borom yàlla boo ko nu digal boo nu tere. loolu rek la demee. jërëjëf Mbacke jërëjëf la la la la yàlla yàlla suñu moom mayoon mën a fëx rek wutit yàlla. doon yàqal dara. doon yàqal dara ci suñu cëru adduna bi. ndax suñu boobam noppi na kenn ku ne lay sa cër yàlla noppi na ci. foo nekk mu fekk la ak moom. jërëjëf. ana kon li ci am solo daal mooy nañu nañu xam ne am nañ borom nañ ko gëm. bu ko gëmee ba noppi ñu xam ne moom moom moo digle lii mu nga jàng jàng rek la wala nga laaj. moo digle lii moo tere lii. ñu góorgóorlu ci la mu digle luñ ci la mën suñu kem kàttan ñu góorgóorlu ci la mu tere da daw suñu xel suñu xel bakkan suñu kem kàttan ni téere yi aadama <laughs> téere yi gàkku gi lépp lii rek fi nekk. li ñuy bare bare bare bare ak alxuraan ak la ko jiitu woon. Mm. lii dong la.